dañuy nuyoo salaamaaleykum dañuy nuyoo salaamaaleykum. maaleykum <laughs> salaam mais doom ndey namu naa la. mais doom ndey maa la ra ci loo ne. maa ngi jàmm. hello koro koro koro nuyoo corona nuyoo corona mais yow mais yow yëgoo yëgoo yëgoo couvre-feu bi de yow. bañ a kaay yëg mais attends before anything else ok yéen daal da ngeen toog jàpp seen kii jël seen caméra yor seen micro dugg ci biir mbedd mi. di bett nit ñi. happy no stress ren. happy no stress happy no stress. la 2STV bi xam nga fu ñu toll nii xale yi. célibataire kenn demul doxaani. xale yi jigéen ñi toog nañu. ñi mënoon dem sax mënatuñ dem. léegi nag comme ñun nag mën nañ dem foog ñu dem jël ay image ñoo wan leen ndax dégg naa célibataire yi ni ñu dundee ko couvre-feu doy na waar yi loo ko dundee en tant que célib. metti daal au plus grand terme. au plus. célib nga war a doo célib. kii durée la mën ko avec un grand mais mais maa ngi lay mais maa ngi lay jaajëfal tey tey dañoo ñëw mu ànd ak Kati Pobar tey damaa dem fori ko kër Amaro. falaa ko dem for ñoom ñaar ci man xaw ma nag man nu mu demee noonu ñoom ñaar xaw ma dañu doon tournage man daa xaw ma lu mu fa demee. yow ci ginnaaw. sama papa dëkk ci mm-hmm. ginnaaw. waaw bu ma ñëwee sama kër papa sama kër papa ak kër Omoro. Mm-hmm. ay ñaari maison yoo leen séparé. <laughs> ma jóge fa boo Omar mu ne ma jaara ka naan café mm. faf nag moom mu fekk ma fa xam nga du nit. Mm. kii man xamul lu ma àndal. dama ma yëg noonu la demee. Ah, <laughs> Omoro xam naa ko Koobala. baraajo bu mag. waa bi Fall na mun naa leen. bien sûr bien sûr seet si la xam nga ñëw sa biir kër seet si la ànd ak gars yi kon damay bàyyi tamit nga nuyoo gars yi waxtaan ak ñoom après nag xam nga ñu soog a waxtaan ak sa gan gi Amina ah? ma wax quand même ban voisine moo la dàqal nga ñaan ko ah mu may la ko. jeex na ba tout d'abord merci beaucoup ci ci bi parce que comme ni ñu wax rek donc bi chez vous. donc vous êtes dafa ñëw tey peut-être ñëw ci biir kër gi déplacé wu ak son équipe comme ni ñu koy defee et puis comme li ñu wax rek corona oblige macha allah c'est une belle très belle surprise que gis naa leen l'autre fois xam nga ak ak gars yi gis naa leen l'autre fois ak ak ak ak Sophia macha allah gis naa ak Eva donc voilà maa ngi doon sama tour un peu mais bon macha allah euh, liggéey bi am na solo trop trop trop trop gis nga rek comme Covid bi ni ñu koy dundee actuellement tout le monde chez lui. donc euh, ñëpp a ngi toog donc toog ak njaboot gi je pense que ni macha allah peut-être point bu bu bu positif boobu rek laa xam ni que donc corona am na ko. c'est-à-dire rapprochement ak mbokk yi. xam nga tey bu fekkee ni que da nekk nitu nit ñi nekk nitu télé donc di liggéey souvent am na yenn jot yoo xam ne doo koy am mm-hmm. souvent yow yaa ngi ci terrain bi. parfois yaa ngi ci liggéey bi ak yu demee noonu parfois nga wàcc fekk maman tëdd xam nga xale yi tëdd et tout ça doo am temps pour mën a échanger ak ñoom mais actuellement ak période de pandémie bi comme restez chez vous la ñu wax donc tout le monde reste ci këram bu ko defee donc ñu mën a mën a jàmmaloo ak waa kër gi mën a xama waxtaan ak njaboot gi tout ça donc gën a mën a am vraiment benn benn benn kii bu bu doy waar daal donc voilà c'est ça en tout cas jëkkër ak jabar yi actuellement dañuy gën a miinante ndax xam nga alaaji yi moom dañuy xëre tàllal léegi aawo yeek ñaareel yi maanaam ñii sëy ñi ñoo gën a kontaan ndax seen jëkkër yi dinañ gën a def connaissance bilaay yow miinanteeg doomi yaay miinanteeg xale yi jëkkër ak jabar yi gën a miinante waat bilaay bilaay ndeysaan moo tax kay ba ñu waxee ku wur fa ndeysaan <laughs> marie yee njëkk jubilé ñoom njëkk waaw marié femme ñoo njëkk jubilé nangam xam nga neex ba neexul nag mais gis nga euh, ak euh, kii euh, corona day yore mais célibataire tamit ndekete du tus <laughs> du dara jàppooti dara. non mais yéen célibataires yi non sérieusement mais en fait du dara. je suis désolée ah mais mais vous les célibataires là. vous les célibataires les célibatoches là trois célibatoches à côté. suuf yow yow kii sa xarit la takk suuf bu ñu koy jiiñ dëgg la am de. takk suuf. waaw yëguma de. ah dama ko nëbb. yow woo ma fi takk suuf mi dëgg la. célibataire bu rëy la boo xam xeetu xeetu célibataire am sax gis est-ce que tane wuñ ko ñu ñett ñuy wax. gis mais mais mais yow tamit euh, vraiment Amina gis naa tout le temps da ngay yónni ay message da ngay encourager gars yi te yow tamit vraiment tu représentes le Sénégal tey ban impression ga am tey ci ci ci vous et nous ak ban vous et nous moo la moo la gën a neex ñu may la ko léegi. Euh, bon c'est une émission que j'aime bien mis à part que dama fam ñaari doomu ndey yu fa nekk mais c'est une émission boo xam ne c'est c'est très euh, éducatif Euh, dafa yokk xam-xam comme on dit bi ma ci gën a neex moo c'était l'avant-dernier ak Ngaaka Blindé waaye ah, j'ai bien aimé ce plateau là ah vraiment ouais surtout avec son album donc euh, Seven Sept waaw Secret Sept j'ai bien aimé donc euh, boobu moom moo ma ci gën a neex affaire de inondation bi waa inondation bi moom la yaay ñaanoon temps yee passé mais léegi xoolal mayal ma mayal ma toq cofal ma toq ngaaka bi parce que moom la gars yi bëgg te actuellement moo xew voilà comme nag dafa saxlaaf mais na naaw ah! man ku ma séentu si gaalu xaj duma ci lekk te duma naan lu ma sonn sonn lu ma lottu lottu man kottu kottu képp duma ñaan waxal ma yaay na ma sànni ñaan mam dolli ñaan rek ma gudd fan ku juddu gis dëgg du dund fen bëgg yàlla bañ yeneen ci amul fen li ma nar a tege tax yoon bi tar ah. mag ilimi nar duñ mën a faar taalibe bambala ak a saa wala sëñ Abdou ak Cheikh Fall bandi dëgg day yore goon wala bandi dëgg day bëri jiir ah. sama dugg jeel seen bénéfice weesoo rek jaari fa ku doon ci maju nag ma xoof wala ma lef sa kare si ñaari fa di nekkatu sampaañ doon si moo defal ma rapport yi sama koor jëfal ma rapport yi sama koor moo def leen di sampaat kenn roo di nekkatu boole gi dama ko. ayo man dama ko. ñëpp laa yey dama yàlla baal. eh eh eh eh. gën leen a oyof comme Cheikh Fall. King Baba. du réew de dama dof King Baba ayo King Baba jë jë King Baba yeah nekkatul réew de dama dof nekkatul boole dama Euh, voilà kon gis ngeen li nga xamante ne moom la Amina euh, ñaan ñu koy jaajëfal bu baax a baax mais damay bàyyi nag day as su continuer li nga xamante ne mooy ay impression vraiment euh, te li nga xamante ne mooy vous et di rappeler aussi que suñu retour nag léegi léegi lay doon joni joni lay doon nañu gars yi xaati yeneen plateau bu ñu ñëwee dañuy dal seen kaw ndax ñun dañuy yëngal te duñu baale. dëggantaan waaw mais gis nga 2STV la ñu wax donc mooy innové. c'est l'innovation qui fait la différence ku ne xam na ne que macha allah 2STV bi année bi dafa def loo xam ne kenn mës ta def donc yàgg na koo def sax waaye lu ñu wax rek donc voilà mi ngi noonu laa bari fas taxul fas a raw fas a ngi ci kanam 2 ngi ci kanam incha allah ci kaw a kaw la jëm ci kaw ci kanam donc cette année dañu def loo xamante ne macha allah peut-être li nit ñi doon xaar sax dañu def lu gën a gën a gën a gën a fort je pense bien parce que tamit donc les chiffres sont là les démarches sont là donc am na loo xam ne lu ne fàng la te lu ne fàng kenn du ko jeex donc gis nañ émission yi nga xam ne indi nañ ko donc émission yu mag a mag muy vous muy 11 13 yaa ngi dégg muy entre temps muy matin bonheur et tout ça mm-hmm. donc nekk na émission yoo xam te ne donc dañu cartonné année bi macha allah aussi ñu nekk tamit euh, mu nekk loo xam ne lu ci gën a mooy 2 euh, bi dafa jox chance aux jeunes. Mm-hmm. waaw boo xoolee télé bi donc y a des jeunes ak ay jigéen macha allah donc euh, mu ñëw jàppale xale yi yëkkati leen ci kaw donc gën leen a teg jox seen gëdd gën leen a jox vraiment place donc nekk na loo xamante ni macha allah ma gën a gën a gën a neex la. Mm-hmm. ci ci liggéey bi technicien comme animateur animatrice donc ñu nekk ñoo xam ne ñëpp pratiquement même génération bi la ñuy parce que quand même ndaw mooy yor réew mm-hmm. donc yaakaar naa ne que 2STV a compris cela et puis mu gën a jox euh, force euh, ñi nga xam moom mooy ndaw ñi gën leen a jàppale ñu gën a yëkkati gën a xam ni que carrément ñoom ñoom ñoom ñoom moom euh, ëllëgu ëllëgu réew mi donc voilà nekk na loo xam ne lu am solo la mhm. tamit nga def ci benn liggéey bu am solo mu bëggoon tamit nga wax ma mhm. ban ban ban moo la gën a marqué ci Voseno yi nga def ak ban artist tey ngay ñaan mhm. bon man moom euh, peut-être donc dina xaw a compliqué un tout petit sax ma wax bu ma gën a neex parce que macha allah émission yëpp yaakaar naa ne que am na solo parce que primo li ñu wax rek suñu credo mooy joindre l'utile à l'agréable c'est-à-dire di enseigner ba noppi donc di divertir les gens parce que actuellement nous savons tous que donc année bi ñu génn a été vraiment assombrie par la Covid donc nekk na année boo xam ne vraiment metti woon na et puis di ñaan yàlla rek yàlla na at bi ñu nekk nii mu gën gën nekk année boo xam lépp dafay leer et puis borom mi nga xam ne moo ngi tegal corona bi teggil ñu ko mais quand même euh, je pense que 2STV def na lu am solo ci émission yi nga xam ne surtout vous et nous di joindre l'utile à encore une fois donc euh, ay thèmes yu am solo solo mais man moom bi ma ci gën a marqué bokk na ci euh, immigration clandestine bi. Mhm. bi ñu demee donc. ah moom tamit moom la demandé ah. voilà donc nekk na loo xamante ni man sax li ma wax sax mooy je bien fait sax ba bañ a dem. parce que nekkoon na loo xamante ni c'était très très très émouvant yàlla xam na ko man demuma parce que mi ngi tombé woon ak gàmmu gi ma amoon gàmmu mujj ma dem mais bi ngeen demee Saint-Louis donc ma gisee image xam na ne que donc j'ai beaucoup pleuré parce que dama xam ni que dañu am ay mbokk am ay yaay am ay frères donc ñu xam ni macha allah ñàkk doom dafa metti wala ñàkk ñàkk ku la jege donc gis ay yaay yoo xam ne mi ngi noonu dañu perdre seen ay doom xam nga perd seen ay jarbaat et tout saa waaw mu nekk loo xam ne vraiment sama m'a beaucoup beaucoup touché may ñaan am may ma élément boobu tuuti rek xëy na sax peut-être euh, c'était pas moment parce que bëgguñu tooyal xolu kenn mais comme lu mënul ñàkk rek faaw ma am man vraiment élément boobu bokk na yu ma gën a gën a gën a gën a vraiment euh, marqué ci ci saison Vous et Nous bi nu mu demee ba ba ba yàlla jàppale leen ak naka ngeen def diggante bi ngeen di langaamoo ba ay nit di leen di secourir. non man moom ba ma toogee nii après maa ngi toogee sama ñetti xarit léegi ñu doon waxtaan di. doon nañ ndékki sax doon nañ ndékki ba pare ni am sama benn xarit bu nekkoon ci kanam maa ko sànni biscuit ak benn ak benn ndox ndax moom amul woon lu mu ndekkee sama ndékki laa xaaj jox ko après bu ndekki léegi ba gaal bi taxawee ñu ni moteur bi dafa am problème ñu koy defar am na benn affaire bi ñuy xëcc loolu moo dagg loolu noonu loolu noonu ba mu daggee léegi ñu dindi moteur bi monté waat beneen moteur pour départ léegi ci lay réparé mooy boobu yàqu ñu koy réparé. léegi ban koy réparé nag ñu dindi calabouche bi mu def étincelle léegi étincelle boobu nag moo jàpp essence bi tàkk benn tàkk bu ndaw léegi bu mu tàkkee tàkk bu ndaw bi gars yi yuuxu mais man moom ba tey fu ma toog maa ngi toog après ci laa jël benn bidon sotti ndox mi téye ko tëj ko téye ba mu dëgër ñuy toog ba si yàgg gars dal leen dal leen daan fay ak yooyu noonu affaire bi yokku nag fekk fa essence yeeg gaz yëpp tàkkandoo man nag après ci laa sóob ak bi. feey no bëri na non ndax talu woon talu nu woon bidon bi man rek maa fa sóoboog bidon ndax man maa toog ba si yàgg xam naa bidon bi bu ma ko jëlee dina mën a sauver yooyu noonu sànni sóobu léegi bi ma soobee sama benn xarit ndeysaan ñun daal que ñu xamante ne ñi marine espagnol sauvé daal ñun 24 personnes lañu waaw ñun ñu marine sauvé daal 24 personnes lañu que en même temps am na ay gaalu gaalu kii waaw gaal yi ndaw yi daal amee xamante ne moom euh, ay mool daal jot nañu fee daal ba dem ci gaal yooyu ñu mëri fee ñi mooy mool yi ci ñu ñoom ñoom nag ñu sauvé leen quoi am ñu sauvé ñu sauvé daal si gaal daal lépp lépp lépp lépp 51 personnes. waaw ah, ni ma sëwee ci ci ci kaas looy lekk ñii noo yore seen ay njaboot ñu yor seen ay soxna yaakaar géej gi nu jël géej gi jaay ka ñeneen fu nu jëm te bu nu jëmee fii naari jàpp nu man mii di wax ak yow naar jàpp na ma ba sama loxo si la tamit sama gaal boobu ba léegi jotuma si ak ñeneen ak ñeneen am na yoo xam dañ leen fi rey am na ñoo xam dañ leen jam bal si tànk xale yi li leen di yóbbu noo kalaanise bël bii doo li naka indi nan wax si bël bii nu dimbali nu Euh, voilà astu léegi je pense que euh, image yi jàll na lii nag mooy vous parce que lii spécial bi munu cee ñàkk voilà dañuy def tour def benn balade bu ndaw mhm. comme euh, daanaka mënuguñu dem def suñu suñu ay plateau mais juste pour rappeler encore une fois que ñu ngi am lu bari yoo xam ne ñu ngi koy waajal mhm. te ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo yor vous et nous ñoom nañu mettre à l'honneur en l'occurrence Ndeye Astou mhm. kon nag tey ba ma xaatal ma beneen son boo xam ne moo la neex parce que am naa jongoma am naa suñu kilifa am naa suñu yaay boo xam ne macha allah seen naa ko fi te boo paree clip bi bëgg naa nga baabal ma ko nag mu sànni kàddu mën na ñaanal ay mënul ñàkk mënul ñàkk donc man moom tàkk am na loo xamante ni macha allah xam naa ne moom ah dina mus a am lu ma def mooy mooy 31 euh, décembre bi donc am na euh, euh, benn son Wally mooy kii Taxi Love bi mu naan sama jikko yiw na sama jëmm ji sax dama ci doyal ndaat saay ndaat saay ndaat rëjagin boobu noonu may ah, may ma loolu waaye mais loolu dafa fees <laughs> <laughs> mi tuuru <laughs> saa su ne tamit dañuy encouragé te vous nu daanaka mën naa sax wax ni suma ma juumulee maman yi ñoo ci ñoo ci ëpp kon nag tey dañ ko fekk si fii euh, ñu ñaan ko mu may ñu ko lool ñuy kontaan bu baax a baax yaa booy ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal vraiment tey kontaan naa c'est un immense plaisir que j'ai euh, pour t'interviewer tey. dama la yàgg bëgg sax avant ngay bokk ak sama doom euh, plateau. mais daal wax dëgg yàlla xëy na lii la yàlla def franchement man seen émission dama ci kontaan. yàlla jàppale leen gën leen a boole waaw si barke Serigne Babacar si mi ñu yaakaar yàlla jàppale leen asu moom sax dama li woon sax euh, du ma wax mais il foog ma wax parce que it asu sama doom la boo xam ne macha allah mooy sama taaw mais merewu ma ko. waaw du tele nag moo tax may wax merewu ma ko benn yoon franchement waa jàppale na ma. jox na ma sama place ak sama famille yëpp surtout bu fekkoon tey daf ma respecté te boolewu ci samay sœur ak samay frère encore du ma taxaw fii sax di wax mais damay wax tey ci suñu ci kàddu famille bi yëpp daal waa xëy na nag maa taxaw di wax mais asu man rek juruma ko waa franchement kontaan naa trop ci moom merewu ma ko déggal na ma wax dëgg yàlla ndax lu jafe lu raar si jamono ji ñu toll xëy na astu bi mu gañee miis mi ngi bëgg dure mais teewul boobu ba tey mi ngi sama ginnaaw ba tey bi ma jëlee fi ma dëkk indi ma fii man ak moom ñoo fi nekk wax dëgg yàlla waa may lool yi mu nekk duma ko damoo mais dama koy sant yàlla waa dama koy sant yàlla voilà jamono jee metti daal fi ñu toll may ñaanal nag ak yéen ñëpp ak doomi ñëpp ni selal na sama xol daal waa may wax encore une fois ci turu famille bi yëpp néegu yaayam néegu papaam ñëpp daal macha allah kontaan naa franchement. waa dina ko dégg incha allah waa kontaan naa maa fi maman yi. xanaa di ci concentré wu rek. waaw di ci concentré bu baax a baax léeg-léeg yi ñu dugal benn euh, son boo xam ni waa day xaw a neex. waa te bëgg naa it encore it ngeen invité Seka. waaw Seka. waaw man bëgg naa ko lool heure bu émission amee maa ngi xaar ndax mu ngi ñëw. waaw ndax bëgg naa ko trop waaw Secka bu caaro yi waaw incha allah rabbi kontaan naa trop ci yéen waa kontaan naa macha allah voilà gis ngeen ko ñun suñu yaay nañ am moo tax saa su ne bu ñu fi fekkee euh, bu ñu fi fekkee nag dañu leen di jox seen cër parce que loolu dafa am solo ndax vraiment euh, amuñu nag euh, lu dul ñoom waaw ndaak xam naa ne sax macha allah lu ñu wax rek comme temps bi gàtt na bëgguñu woon sax mu jeex ma sañoon dañuy ràkk toog donc def confinement bi fii nii toog waxtaan na ataay encore bu xam suñu gerte mais vraiment comme temps bi jot na donc dañuy tàggoo rek euh, di ñaan encore une fois comme euh, feebar bi nga xamante ne mbas la suñ borom moo ko fi teg donc bu ñëwee nag en tant que jaam dañuy nangu dogal donc teg nañu ko nangu nañ ko bu baax a parce que ay jullit lañu gëm nañ suñu borom donc dañuy ñaan rek moom ñu ko fi teg am na solution yàlla na ko fi teggi te te te mu nekk loo xamante ne vraiment mu dem ak jàmm ak salaam ba ñu fi ak suñu njaboot te te aussi suñu borom musuñu ci lépp loo xam ne lu mel noonu la encore une fois di wax sénégalais yi donc surtout les jeunes di leen ñaaxaat di leen sensibiliser di wax ni que vraiment ñu ñu ñu ñu gën a gën a gën a gën a gën a respecter li nga xam ne moom mooy les mesures barrières comme ni ko ni ko njiitu réew mi diglee donc parce que tamit am na loo xamante ni ça va de notre suñu intérêt bopp la parce que la santé n'a pas de donc bu fekkee ne que ñu Très bien. Ah, des fois dañuy faillir euh, ci loolu dañuy faillir mais du tee tamit euh, comme li wax rek c'est une leçon pour nous mais aussi pour tout le monde donc lu am na loo xamante ni donc pour ñun la même bu dee metti na parce que ku sañoon tey da ngay génn bëgg a dem seeti ndaak nga génn gaar sa sac dem xool ko bëggee dem gis Amina wala kati dem seeti ko toog waxtaan bi ràcc mais quand am na loo xam ne bu ñëwee dañuy nangu donc nañu respecter encore euh, une fois les gestes barrières donc bàyyi génn ci mbedd mi taal pëna que nit ku ne mën nga faj la yàqee yaakaar naa ne que ñun doomi baadoole ñoo ci paye encore les pots kon donc euh, en tant que jeune en tant que une jeunesse consciente damay ñaan man euh, ci ci ci voix wu sénégalais yëpp ci voix jeune jeunes yëpp ci voix wu 2STV yëpp ak vous et nous di ñaan jeunes yi encore une fois ñu respecte les gestes barrières donc takk suñu ay masques respecte distanciation bi donc gën a gën a gën a gën gën a euh, jàpp ci li nga xam ne moom la ñu digal et muñ ko parce que xam nañ lu metti yàggul te bientôt incha allah on espère bien que dina fi jógee donc jox vous et parce que gars yi xam naa nam nañ ñu mais ñoo leen raw chaque jour ñu woo ñu waa mais ana Kati ana Ndaak ana Astu nangam ak nangam ñëpp a yàkkam ci waajal rëy li ñuy waajal rëy yow léegi technicien yaa nga nii tey tey dama bàyyi rek nga ku nekk nga nga tooñ ko